sa sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay salaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit mbokki taalibe yi ñuy déglu ci seen télévision Touba Argentine TV ñu ngi leen di jaare bu baax yéen ñëpp kenn ku nekk suram ak santam di baalo ñëpp ax di leen baal ak di leen jaar di leen ndokkeel ci weeru màgg wu sell wu tedd wi ñu nekk muy weeru safar di ci ñaanal sëriñ Muntaxal Bachir mu yàgg fi loolu te ànd ak wer ba li mu yéene liggéeyal sëñ Tuubaa moo am ci lu kawe loolu njortam di ko ñaanal sëñ Cheikh Jëmm Fall ak mboolem njabootu maam Cheikh Rafal gi yëpp. bu ngeen gisee jotaay bi nag ñu fas ko yéene def ci fédération ci turu fédération Miftaahu Nasri Touba Argentine ci njiital sëñ Yankoba Gueye ñu koy ziyaare di ko jotal nuyoo mbokk mboolem mbokki taalibe bi yëpp di ko ñaanal jàmm ñu waroon a amal waxtaan wu ñu war a waxtaan mu jëm ci waajtaayu màggal gi. ci ndaw yi nga xam ni ñoom la fi bàyyi ñu topp ci moom ku ci mel ni sëñ Ahmadou bàmba Niang xam ne ñëpp xam nañ ko ak sëriñ maam Thierno Amar yor chargé de commune euh, chargé de organisation moo waraloon jotaay bi fii ñu fa yéene waxtaan ak ñoom xam naa ci njëkk dañuy bàyyi sëñ Bamba nuyoo bu ko defee ñu ñëw ci question yi nga xam ne moom moo jëm ci wàllu màggal Touba geeg mbooleem lu jëm ci liggéeyu siñ bi salaamaaleykum sëñ Bamba waaleykum salaam wa ñu ngi leen di ziyaar bu baax di leen nuyu di jiital ci nuyoo gi ay ñaan jëmale ko sëñ Muntaxa góor yàlla di ko ñaanal sañu boroom guddal fanam lool gudd fan gu ànd ak wér gu sax dàq ba naal wi nga xam ni moom la naal maamam ju tedd ja sañu boroom dëbb ko kàttan ba mu yeggale ko ci nu kaweeg njortam ki noonu di ko ñaanal njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp ak képp koo xam ne rek jëmale diine ak suñu borom bi ca kanam moo la tax a jug di ko ñaanale sëñ Cheikh jëmb at mbooleem xalifa Cheikhub sëriñ Tuubaa ñu ngi ziar bu baax a baax eh, waaye jotaay bi rawatina eh, Touba TV mi nga xam ni eh, moom moo ñu dalal tey kon xam naa dañuy yemale kàddu yi foofu rek ba waxukaay bi ñëwaat ci ñun. jox suñ bàmba ci ñaan yi yàlla ko yàlla nangu bu ko defee ñu jox suñ maam Thierno mu nuyoo rek. ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar waa Argentine waa waa Touba TV ci njiital sañ góor ak mboolem ñi mu ci àndal yëpp di ziare Serigne Mountakha Bachir mu gën a yàgg gën a wér di ko ñaanal baax ak mboolem njabootu Serigne Touba gi yëpp di ziare waa fédération bi yëpp ci njiital Serigne Yankoba ak Serigne Bamba Niang. Thierno ci nuyoo beeg présentation beeg ñaan yi yàlla kon ñu ñëwaat ci sëñ Bamba rek euh, question bi ñi lay njëkk a laaj mu mel ni ñëpp xamoon nañ ni fédération Daara Mouftahou Nasri bi nga xam moo nekk fii Touba Argentine toll ci 41 daayira sëñ Touba defoon na tawféex depuis daaw amoon nañ fi kërug sëriñ Touba goo xamante ni euh, ñëpp teg nañ ci seen bët defoon nañ tamit première pose xeer bi te képp ku ni màggal sa sa sa xel dem ci kër sëñ Touba. li ñuy njëkkalaat njëkk a laaj mooy ndax màggalug 2018 gi ñu dëgmal ndax ci kër Sëñ Tuubaa googu la ñu pare pour defe ko fa wala déet. waaw loolu de moom liñ ciy tontu te dinañ sawar tontu ci loolu ndax wax dëgg yàlla yéene la goo xam ni kenn ku ci ne xam na ni murit yi ci Argentine gi yëpp yéene googu la am waaye nag daa fekk ni e, léeg-léeg bi am yéeneem lool waaye sañ borom yegg si ab dogalam wax dëgg yàlla amoon nañ yéene lool màggale fa. waaye nag képp koo xam ni defe naa ni dem nga ca barab ba gis nga ni barab ba eh, bindoo eh, mooy pàq bu yaatoo yaatu lañ jëndal Sëñ Tuubaa ci réew mi sax sañ borom daa dogal sax occasion ci laaj nii ndax bu sañ borom dogalee jàmm talaata ginnaaw suur bi lañu war a daje waa ji nga xam ni moo ñu war tàmbalee tabaxal kër gi joxante nañu moom rendez allah dañoo war a dem ci avocat yi ak li ñuy wax notaire ci tubaab toog moom signé kayit yi eh, jébbal ko xaalis bi nga xam ni moom lañ ko war a jébbal mu tàmbalee liggéey bi waaye nag loolu moo waral eh, màggalu ren gi moom duñ ko mën a defee foofu. waaye bu déwén gi moom wax dëgg yàlla ci pas-pasu murit yëpp am nañu yéene yàlla nag moo xam li muy dogal ginnaaw loolu defe naa ni kenn ku ci gis na ni bi ñuy def eh, muy barab bu mucc ayib xam ni ci yaatuwaay defe naa ne sañu mbooloo xaj na fa ci dalit eh, sañu mbooloo xaj na fa ba na ñu ngi dox eh, barab boobu tey defe naa lu néew ci des ñu jot ko xam naa sax bu ñu demee ba maam Thierno jotaat euh, kàddu yi dana ci am lu ci leeral loo xam ni euh, fànn woowu moom moo ci gënoon jege waaye daal ñu xamoon mbooloo mi ne leen euh, màggalub ren bi moom duñ ko mën a defee ci kër sëñ Touba ga waaye nag ñu ngi leen di profité rek xamal leen ni bu soobee yàlla semaine bii ñu nekk jàmm la ñuy tàmbalee tabax bi te it fas yéene ñoo ñoo noonu ñu ko daan waxee saa su ne château daal lañ fas yéene tabaxal sañ tubaab fii ci ci ci dëkk bi te it war euh, fas yéene nañ faa def ay euh, mbiru xeetu barab yoo xam ni lépp loo xam ni lu moderne la ci wàllu dalal gan wàllu jànguwaay wàllu jullikaay waaye wàllu barab bu ñuy berndee fas yéene nañ ko faa amal ba nga xam ni bu ëllëgee jàmm buñ fay màggalee duñu ñu wëri lenn fenn kon xam naa foofu eh, dañuy yemale foofu kàdd yi rek ba xëy na bu yeneen question ñëwee ñu ñu ñu yaatal. jërëjëf suñ Bàmba ci leeral yi wax dëgg yàlla <clears throat> mat na sëkk te it leer nañ kon bu ñu déggee sa waxin day mel ni mbokki taalibe bi yëpp amoon nañ pas-pasu ñu màggale ci kër Sëriñ Tuubaa googu waaye day mel ni xeeti liggéey yi nga xamante ni moom lañ fa war a def moom moo yéemagut am nañ pas-pasu tàmbali ko nag waaye xëy na kon màggalagu ren gii day mel ni su ma déggee sa waxin ñu ngi ko ñu ngi ko jàppagun fi ñu defe woon bisu xasite yi foofu lañ gën a jege defe ko fa waaw kon dañuy continuer rek ci laaj yi ngir saakoo xam waajtaayu màggal gi fan ngeen ci tollagun lan ngeen ci tàmbaleegun ak lan mooy dox gi nga xamante ni moom mooy euh, doxu semaine bi ñu nekk ndax xëy na bu ñu génnee semaine bi rek dañuy duggaat ci semaine màggal gi kon dañuy saakoo xam fan ngeen toll ci waajtaay wi ak doxalin wi ak tëralin gi ak nu ngeen ko bëggee waaw foofu it eh, comme noonu ñu ko waxee woon rek defe naa ni ay weer a ngi nii yoo xam ni eh, defe naa ni nelawatuñ sax guddi laay wax ndax eh, réunion yi moom niñ koy tegalee muy réunion jëwriñ yi ak réunion xitma yeeg yeneen yu bari yoo xam ni daanaka chaque ñaari semaine ñu dajaloo toog di waxtaan li ko waral nag mooy bis bii nga xam ne moo ne sañu kanam te amuñu lu dul moom muy màggal sëñ Touba gii nga xam ni moom ci boppam moo ko wooteloon boppam ne képp koo xam ni sama mbég sa mbég la ñëw leen jàppale ma ma santale yàlla ci bis bii nga xam ni lépp loo xam ne am naa ko sama diggante ak sañ borom rek ci la sañ borom defale moo tax ñun murit amatuñ ci sago eh, ba tax na it boobu ba léegi ñu ngi daje di waxtaan eh, ñun waa xidma gi ñun ñi nga xam ñoo yor tamit organisation bi eh, fii nga xam ni fa la ñuy réunion saa su ne muy fi daayira Lignes beeg daayira sëñ Saliou bi di daja di waxtaan wàllu programme bi it niñ ko waxee defe naa ni màggal moom eh, ak njàngaleem sëñ beek njàng moo ko njëkk a jàngal ñëpp te mooy jaamu yàlla at bernde jaamu yàlla gi it ñu ngi ciy waxtaan bu baax te loolu defe naa weesuwul jàng alxuraan jàng xasida te loolu defe naa ñi nga xam ni ñoom ñoo ko yor eh, eh, ñu ngi ci jokkook ñoom lim yi nga xam ni bëgg nañ ko ci ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom bu ñu demee ci wàllu bernde gi nag nga xam ni defe naa ni moo coiffé màggal gi ndax eh, dañuy wax ni eh, lu jiitu li saa su ne ñu ci loolu moom sëñ bi dañu cee dimbale ba wérdu lañ ko def te mooy jàng alxuraan ak jàng xasida loolu moom murid bu ci ne wérdu nga ko def waaye bernde gi nag dafa mel ni dëgg dëgg dëgg màggal gi bernde la te loolu kenn ku ci ne xam na ni organisation la laaj bernde nag àddiya moo koy def ba tax na boobu ba léegi ñu ngi waxtaan di xool euh, lépp loo xam defoon nañ ci daaw benn rek fas yéene nañu def ci daaw euh, def ci ren fukk te loolu defe naa ni pas-pas dëgg lay laaj kon defe naa ni euh, bu ñu noppee ci barab bi nga xam ni moom la ñuy wut nii bu jàppandee lii wàllu aménagement te muy taaral barab it ña ko war a yor Eh, waxtaan nañ ci ñoom lañ ca war a soxla it ñu ngi toog di leen ko jébbal pour seen wàllu aménagement jaar yoon bu dee ñi nga xam ni ñoo yor wàllu waañ gi nga xam ni mooy li nga xam ni mooy dëgg-dëgg màggal gi muy bernde gi ñooñu it wax dëgg yàlla waxtaan nañoo ak ñoom ba xamal nañ ñu li nga xam ni moom lañ bëgg a def ci màggal gi li ci des nag eh, defe naa lu ñuy gën a dem rek muy gën a jàppandi waaye muy gën a leer ci mboolem taalibe yi nga xam ne ñoom lañu ñu àndal eh, ngir waxtaan boo xam ni du tëju mukk fekk màggal ga di di yegsi kon daal ñu xam ni ñu ngi ci yitte yoo xam ne fi mu nekk nii eh, ñun sañu xalaat ak sañu jëf sañu lépp fi ne nii wóor na yàlla dañ kaa boyal jëmale ko ci màggal gi te loolu mbooleem ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci xidma gi yëpp xam nañ ci bari dañuy dem ba mujj gi sax yàlla xam ne léeg-léeg ñu soññante foo xam ni boo ko fekkee sax da nga yàlla bu ñu dóorante ay ay ay ay ay ay ay te loolu yëpp li ko sabab rek mooy fexe ba eh, màggalu sëñ tubaa gi jag loolu moo xam naa bu ci eh, jëwriñ maam Thierno yegg si sax dana ci leeral bu baax a baax a baax ndax léeg léegi gars sax dëkkale ko foo xam ne day te lépp ngir bëgg màggal gi jag rek la. Mm-hmm. kon xam naa dañuy yamale foofu rek te xam ni eh, li ñuy wax daal yitte ju kawe dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fi mu nekk nii am nañ ko waaye nag jëmale ko fenn fudul ci màggalu sëñ gi. ci xidmatul xadim boobu nga génn sax ci laay des waaye ñëw ci ak sëñ maam Thierno Amar mi nga xamante ni moom mooy chargé de moom mooy vice président chargé de organisation ndax dëkk bi ñu bari dañuy dégg ñu naan xidmatul xadim te bëgguñu kenn dégg ko jàpp ni ab daayira bu sosu la wala wala leneen loo xamante ni lu ñu lu ñu fabriqué la wala lu ñu formé la mm-hmm. kon xidmatul xadim googu bu fekkente ni dégg naa ni nga waxe moom moo yor mboolem luy organisation ci liggéeyu Sëñ Tuubaa fii ci dëkk bi. moo xam muy màggalu tubaa wala bisu xasita wala lu fi mën a jaar rek te doon liggéey Sëñ Tuubaa xidmatu xaddim googu mooy li koy organiser. Mm-hmm. kon loolu ci la ñuy jox sëñ maam Thierno Amar mu indi ñu ci ay leeral ak ku ci bëgg a bokk nooy def. Mm-hmm. ak lan mooy lan mooy sart yi ak lan mooy doxin gi ak waajtaayu xidmatul xaddim ci màggalu Sëñ Tuubaa gi. di lu question bi ndax day nekk question boo xam ne lu jar a leeral am solo la. ndax loolu nga wax muy wàllu xidma bi boo ko déggee mooy organisation bi rek te yaakaar naa organisation benn pàcc la ci biir fédération bi bu ñu taxawalee fédération Serigne Touba bi lan jox organisation bi ñu yor ko te yaakaar naa organisation mooy doxal lépp ci lu mën a doon loolu nag mënuñu yor organisation te duñ di daje di waxtaan te xool ku ci bëgg a bokk na ngay def waaye du question ne daayira bu formé la. wala dañoo formé daayira wut suñu nit yi bopp dugal leen ca wala dañ cee bëgg dara daal wala loo xam dañuy jëlee ci daayira yi di ci yóbbu non non demewul noonu ni mu demee mooy waa organisation bi leen ko dénkee dañoo daje def seen benn rajo fu ñuy waxtaane ak chaque weer ñu daje benn yoon wala chaque quinze jours loolu nag bi ko defee ba pare tamit bépp jëriñ boo xam ne yaa ngi ci fédération bi woo nan la laaj la ay membres yoo xam ne ci wàllu organisation yi la ñuy yëngu sa biir daayira ñu mën a ñëw bokk ak ñun liggéey boobu bépp jëwriñ bu ne ci biir fédération bi rek dégg ko kon ñun suñ jaan wàcc na ci côté boobu def nañ tamit ay communiqué woo ñëpp ndax damaa jàpp ne nit ki sénégalais yi ci bëri dañuy dégg ba lu mel na màggal Tuubaa ñëw rek ñu xëy suba ñëw ci liggéey bi bu ko defee di jël di teg di duñ xam daal li nga xam ne moom lañ tënk lan la te nit ki bu dama yaakaar boo bëggee ànd ak moom liggéey da ngay ànd toog di waxtaan ak moom ñu xam liggéey bi nan la war a demee bu boobaa réeroo du am liggéey sëñ Tuubaa bi nag ñun seppuñ ci kenn te mënuñu ko te ñu ko buñ sañoon ñëpp bokk ci liggéey bi sëñ Tuubaa ndax ku tedd ki ci boppam mooy wax ne bu mënoon a nekk ñaari jëm beneen bi day sopp ñëw di liggéeyal di ko liggéeyal boppam di ci jariñu kon bépp jullit bi nekk ci dëkk bi waxuma la murid waaye yéen a nan nga tax ci liggéey sëñ Tuubaa mm-hmm. kon nag ñu ngi delluwaat di woote ñëpp ci organisation bi ñu ñëw di ànd ak ñun réunion yi di waxtaan ak ñun ndax liggéey bi jaar yoon ndax ñun ñi nga xam ne ñun lañ ci jiital bépp liggéey boo xam ne am na ci dëkk bi bu ci faay amee wala benn débordement am ci ñun rek la ñuy sikk te bu boobaa ñu bari duñ ko fekke loolu mooy kii bi ñu ngi leen di woo rawatina nag suñ mbokk Baye Fall ci njiital sëñ Assane ndax ku tudd Baye Fall tudd liggéey ñëw du ñëw ci organisation bi day fekk réunion yi lu ci am solo la ndax nit mënoo di réunion guddeeg bëccëg lu mat une heure de matin de matin nga ñëw ñu jël jóge fee teg fu ko neex nga wax ko mu ne moom moo liggéey bi nangam nangam ñun ñu ko jiite sax fële la ñuy dëkkale waaye loolu lépp sax du garaaj ñu ndax dañuy xam ne ku tasee ñun ci mbedd mi dooñu ko wax wala ku ñu fekk fa ñuy suñ bërëbu liggéeyukaay waaye liggéey sëñ Tuubaa moo tax dañ koy nangu waaye ñu xamal nit ñi rek danoo bokk bëgg ñu ñëpp ñu bokk liggéey liggéey bi mën a jaar yoon ndax ñu ñëpp suñu ndam la waaye ñëwuñu pour xaajee ñëwuñu pour ay groupe ñëwuñu pour pour dara kon nag loolu ñu ngi leen ci soññ bu baax di sàkk jëriñ ñu soññi waat seen boole ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ba tey ci xidmatul xadim googu ci la ñuy des ak yow duñ ko génn ndax buñ nee chargé organisation rek mm-hmm. bàyyiwuñu dara ndax kon day mel ni commission sécurité ca lay dugg euh, hygiène ca lay dugg mooy ñor wàllu set setal bi waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñor cuisine ca la ñuy dugg transport ci la ñuy dugg kon ñu bëggoon a xam ndax wàllu xidmatul xadim googu noonu trancé ngeen ko noo xamante ni. pàcc yooyu wala banqaas yooyu ma lim muy hygiène set setal sécurité transport lu mu ci mën a doon rek ndax tas ngeen ko waxtaane ko ba xool ña nga xamante ni war nañ caa mën a ne ndax jàpp nañ ni nekkul ni nit ku ne moo war a nekk sécurité. Mm-hmm. nit ku nekkul tamit nit ku nekk moo war a yëkkati aw ñam di joxe. nekkul nit ku ne lañ war a jox oto ne ko demal bërëb sàngam nga jëli nangam ndax xidmatul xadim mi bi ngeen wootee ba ñëpp ñëw. ndax segg ngeen tànn xool kenn ku nekk la mu mérito ci liggéey bi te xam ko te mën ko ngeen jox ko ko mu ci mu ciy liggéeyal sëñ Tuubaa loolu te bëgg nañ nga indi leen ci ay leeral. dafa mel ne da ngaa fekke suñu réunion bi passé àjjuma ndax ci lu mel noonu rek ci la doon waxtaan bi ñu ko joxee bi nu woowee nit ñi ba ñëw tamit maanaam wàllu woowu wàllu wu ci ne woowu nga lim wutal nañ ko jëwriñ ku ko jiite. yaakaar naa def nañ ci màggal tubaa gi passé def nañ ci journée xasida bi passé biñ ñëwaatee tamit. xool nan ku nekk ndax lan la joxoon manoon nga ko wala nañ ko bëggoon doxale nga ko mm-hmm. bu dee def nga ko ñu bàyyi bàyyiwaat la fa loo ca soxla ñu yokkal la ko ca ñi nga xool ñi ñu gis na tamit lan leen joxoon defuñu ko nañ ko war a def tamit jëlal nañ leen fa teg fa ñeneen te képp luñ ci jox nit tamit dañ ko laaj saytu ko ba yaakaar na mën nga ko ñu jox la ko loolu moom ñu ngi ciy dox bu baax ba ci réunion bi passé li ci ëpp ci réunion bi loolu la woon te vendredi bi ñëw tamit war nañ réunion waat di ci woowaat ñëpp rek ba ndax li ko waxee mbooloo dafa nekk noo xam ne ku nee ñëw yow mi nga xam ne yaa ne sécurité taxaw ci bunt bi war nga mën a masla war nga mën a xam nooy waxee nit ñi war nga xam ku mën doon bu dee yow mi nga xam ne yaa war a joxe wàllu lekk war nga nekk nit koo xam ne ku présentable nga ku set nga doo jox nit ñi ay café muy toq ci ñoom wala nga leen di jox ay ñam wala nga indi aw ñam sax te indiwu goo raxasu wala nga boole ñaar yëpp teg ko kii di raxasu muy muy toq ci kaw ñam yi yooyu ñu ngi ciy jàngat ñu ngi ciy waxtaan te fas yéene nañ bis buñ ci dellusiwaate ñëpp xam ne liggéey bi ñu ngi ciy sonn bu baax a baax foofu daal dana ci gën a bàyyaat suñu wàll gën cee doxaan ndax loolu lu ëpp importance la waaw. leeral li ñu sàkk woon a xam ci mbooloom xidmatul xadim googu muy ndawi Serigne Touba yi nga xam ne ñoo takku jël liggéey bi di ko organiser te jëmmi sëriñ bi rek tax day mel ni li ñu sàkk woon a xam ci ak leeral day mel leer nañu nan te it wax dëgg yàlla mbooleem euh, murid di ne ci xidma googu depuis ñu am seen engagement boobu ba léegi wax dëgg yàlla maam gis nañ ni mboolem organisation bu fi jot a jaar ñu dugal ci seen loxo rek suñ borom def na ci tawféex mooy mooy ca ca avant liggéey ba ak après liggéey ba ndax ab liggéey ñaar yooyu dong la avant liggéey ba ca biir liggéey ba ak après liggéey ba. Hmm. kon day mel ni loolu liñ ci sàkk woon a xam euh, lu ci bëri leer nañu ci waaye dañuy ñëwaat ci sëñ Bàmba. Hmm. ndax mbooleem liñ fi wax nii rek maanaam am na lu koy mottali am na lu koy jagal. Hmm. ndax buñ nee màggal. danañ ni jaamu yàlla alxuraan xasita tagg rasulillahi kalimatu laa ilaha illallah loolu mënta génn ci màggal waaye beneen point bi nga xam moom moo ci des nag moom mooy berne te loolu kenn ku ne xam ne ni waxi neen defu ko baatin defu ko li koy def saayir la te saayir si mooy làmb sa alalu bopp xool ko mu dëgër bari nga àttan koo jël def ko ci liggéey Sëñ bi wàllum addiya jooju lañ bëggoon a xam Bàmba fan la ci fédération bi toll. foofu wax dëgg yàlla. noonu nga ko waxee noonu rek la demee dëgg-dëgg eh, màggal gi li koy def moom addiye la addiye jooju nag damay wax ni fii nga xam ni fi lañ toll tey jii nii di wax maanaam bu fi newoon bu fi dara newoon sax dañ koy daal di dindi boole ko ci bilan zéro ndax yéene gi nga xam ne am nañ ko ci màggal gi eh, kawe nag njort kawe goo xam ni defe naa ni mënuñu ko defantu te it ñun fii ci Argentine seen borom dafa dogal e, duñ ko bëgg sax di tudd ak di jàmbat ndax e, sëñ Tuubaa dañu koy tere ku yër kun kaati man xam ni ñun taalibe sëñ Tuubaa dañuy tere jàmbat waaye kenn ku ci ne xam na ne ku ne ci dëkk ci àdduna bi rek di di déglu média yeeg seetaan xam nga ne Argentine fi mu nekk nii mu ngi ci ay crise économique crise économique nag boo ko déggee mooy xaalis bu daanu dollar bu yéeg dëkk bu mu dal maanaam ña dëkk ca dëkk ba dañuy daal di denc seen xaalis pour xool fan la crise ba yu mujjee ngir ñoom ñu xool nu ñuy defale seen dëkk ña fa ne it daal di liggéey xëy na dana leen bett lool ndax ku daan yónnee fukk mu doon mu doon fanweer boo demee ba boo yónnee fukk mu doon fukk ak benn xaw a xaw xaw a jaaxle waaye loolu ñun murit wallaay lazim waruñoo dal waruñu kaa xalaat waruñu kaa yëgeet màggal sëñ Tuubaa gi ne bu ñëwee SDRS dafa war a jaaree dañ ba faw stress nag li koy indi ci ab moodu-moodu mooy mu xëy soxla maanaam la mu soxla xaw a dëgër ci boppam waaye ñun ku ku ku dul may sa bopp loo am dalaa war a doy te ñun Sëñ Tuubaa ñuy may màggal gii nag dañ cee war a ràññee ñaar mooy ni nga ko waxee ci taarix rek mosuñoo dégg fenn fu Sëñ Tuubaa woote luy xaw a mel ni ndimbal te wootewul sax ndimbal nag koo xam ni da caa lott déedéet la mu la mu la mu doon mën mën na ko waaye bëgguñoo dimbale moo tax mu wax waxam ju jooju kon ñun dafa mel ni sañu dara war kaa fekkee addiya nag addiya boroom da koy làmb daj ko boroom da koy làmb daj ko xam ni lii la def ko fam ko war a def mu jariñ ko sëñ Abdoulaye da daan wax ni moom addiya sëñ Tuubaa da daan wax ni moom addiya maanaam fi muy jóge bu fa deful dara foo mu jëm du fa def dara loolu nag dégg-dégg la laaj mooy maanaam addiya ki kay joxe dakaa war a yëg kon màggal sañ tubaab gii lii dëkk bi demee waru kaa yëg ndax 4000 pesos lañ ci sase 4000 pesos nag na ma ko doon waxee saa su ne amul kenn ku koo xam ne ci ñun rek wallaay la sim bëgg ngaa semaine lëmm nga jaay ci 4000 pesos ku ko ci defoon tey jii la ngay njëkk jàpp mooy da ngaa da ngaa wala da ngaa tooñ sa borom loolu moom ñun ñu ne ci dëkk bi yëpp xam nañ ko. ginnaaw na 4000 peso du lenn war kenn kenn bëggul ci ñun jaay ko semaine kon buñ ci wootee mu jëm ci màggalu sëñ Tuubaa gi rek dama jàpp ni war naa oyof képp ku xam ni ku ne ci biir dëkk bi la kon nag ñu war cee góor góorgóorlu ñun ñëpp moom seytaane nag ni ma koy waxee saa su ne lépp loo xam lu jug la jëm ci sañu borom danaan taxaw temm ngir fexe ba loolu du jàppandi ndax nañ xam ni mission ci kaw suuf du lenn lu dul rek la ko sëñ la mu waxante woon ak sëñ borom danaa fexe ba sa jaam yi duñ la sant te lool nag màggal sëñ Tuubaa gi da cee bokk kon képp koo xam ne donte 1000 peso la sax tey jii bu ñu ko sase woon boo ko dee yëkkati seytaane dina ñëw sa xel ne leen lii boo ko joxee dootoo ko am wala boo gaañi li ñuy laaj mën dañ kaa mën ñoom moo tax nangam ak nangam waaye yoon bi moom kenn mosu cee wax ci taarix ne diw daan na ci joxe ba xëy ñàkk kon fi dëkk bi toll nii li ñu bëgg ci màggal gi buñ ko bëggee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg faw maanaam ñu ñuqi teg ci kaw taal mu dox te li des ci màggal gi dara des su ci waaw barki démb lañ def première safar mu des 17 jours tey ñu ngi ci 2 trois safar kon defe naa bu ñuy wax fi mu ne ni quinze jours moo ci des wala 14 kon dara des desatu ci kon ñu ngi woowaa dëkk bi yëpp fu waay nekk nga def ko mbiru personnel nag jarul xaar sax ci daayira bi dana ñëw kañ ak nangam ak nangam addi ji tàmbale ni ñoo def démarche yi. tàbbale nañoo def gasto yi te mooy financement yi kon képp koo xam ni 4 millions yi jàppandi na ci yow ñu la koy laaj fu mu mën a jege rek nga jegeel ko te xam ni loolu képp moo ñuy jariñ loolu nag eh, pas-pas dëgg la laaj ndax eh, seytaane du ñu bàyyi mukk ñu def ak suñu xel waaye sëñ bi moom eh, defe naa buñ dee wax naan jaral nañu lu ëpp loolu sax day xaw a ñàkk tegginu lool ndax sañu digganteeg sëñ Tuubaa maanaam adda a njar da caa warta ne ndax moom daa daa daa daa daa moom daa gétt gi moom jur gi moom li ne ci biir jur gi kon nag heure bu soxlaa jur rek war na kaa yomb kon nag maa ngi woote woote gu réy goo xam képp ku dégg sañuy kàddu at foo mën a ne ci dëkk bi rek sas wii nga xam ni moom lañ joxe yomb la yomb la ba faw te it lu waaye jug jot ci rek jug jug jëm ci rek mu nooy cee waaye daal ñu ngi soññ ne ko ñëpp matal te matal gi ñu seedeel ko suñu diggante ak sëñ ndax addiyee jooj ku ko teg teg sëñ Tuubaa doo doxal addiyee ji te li mu def sañu jëmm yi kat defe naa ni taxaw fenn nag moom di korkoral sax moom waratul kon waxtu wii ñu toll nii wër na seelu Xadim dañoo war a miiraasu ñëpp def ca wër na sëñ Tuubaa Mbàkke dañoo war a miiraasu ñun ñëpp def ca kon loolu ñu ngi ciy woo ñëpp bis ni ki tey lu waaye defati ci dëkk bi maanaam na buur say mbir mbir jëmale ko ca kon daal wàll woowu moom foofu lañ foofu lañ cee foofu lañ cee tontu mooy noonu nga ko waxee noonu rek la bernde moom addu yaa koy def. te it laajuñu lu fi nekkul. wallaay lazim la sëñ Saliou Mbacke daan wax ni woote gi daa joxe gi daa jiitu laaj gi dafee ne waaye nag li ñu sëñ Touba defal am gi daa jiitu daa jiitu laaj gi ñun ñëpp a yor barki sëñ Saliou Mbacke ñun ñëpp ngi sant yàlla bu wér a wér a wér a wér a wér. kon nag defe naa ni joxe bi moom war naa yomb ndax li ci des dégg sa xol rek te xool li la sëñ bi jaral. loolu nga indi ci wàllu àddiya soññee bu am na solo lool lool lool wax dëgg yàlla mu nekk loo xam ñu ñëpp ñoo ci war a euh, dégg rek te dox jëm ci ndax noonu ko ko waxee ci sëñ Saliou rek lim naan wax naan euh, joxe gi daa jiitu laaj gi. te it moom jëmmam ju tedd jooju moom Serigne Saliou nga xam ni. mën nañ ni képp koo xam ne ndaw nga rek. mën nañ ni moo la wan luy Serigne Touba. ndax ci jamonoom ci la ci ci ci la njàngum xasite mhm. ci lañ gisee ndaw luy liggéeyal Serigne Touba te du am benn difficulté. buñ ko toppee sax dañuy sori. Mhm. te it moom ci boppam daana wax naan ñaar ñu dend kii fonk màggaluk Serigne Bamba gi ka fonk ko ki nga xam ni fonk na màggal gi de du deñ di raw ko ko fonkut. ba ala kulli alin te nag màggal gi ay mbir la yoo xam ne ku la ci raw mm. moom doo ko dab ba déwén te bu déwénee bu jëfaatee lu toll ni la mu jëfoon mhm. loola trace lay lay doon seen diggante da la koy rawewaat kon day mel ni kenn ku nekk war nga cee góorgóorlu te jëmmi sëñ Saaliw jooju daana faral di wax naan mhm. addiye dana fekk fu dara nekkul mu def fa dara mhm. fekk fu dara nekk mu baril ko waaye fekk lu bari lool tamit mu barkeel ko kon kon kon nañu jël suñu addi suñu nañu jël suñu addiye def ko ci sëñ Tuubaa te it bañ koo joxe ngir buñ ko joxee am nangam suñu digganteeg sëñ Tuubaa weesu na foofu ndax ci géej gi xalaatul woon sax ni am na lu ko mën a téye ba du wàcc ci biir ndox mi waaye ñun ñu xeebu ñi nga xamante ni ñun la gis xam ni lool dem googu bu dem bu demul woon mhm. duñu jariñu mukk moo ko taxoon a def ñaari rakkay géej euh, julleem googu ci géej gi kon ñun itam bu ñuy jox suñu àddi suñu tubaab buñ ci seentu dara mhm. kon suñu maam Thierno ñu bëgg nañ nga ñëwal ñu yow itam ci wàllu àddi ji rek di comme noonu ko ko waxee rek daanaka mat na sëkk waaye ci mbokk taalibe yépp rek bépp murid rek ndax dama jàpp ne képp ku bëgg a dimbali nit ki bu weer yi jubee moo la màgg la jub doo ko ci décoration la wala nga koy yërëm mm-hmm. yaakaar naa loolu ak lor ko la ñu xam ne nag bépp mbokk taalib boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi jàppal na yow yaa war def màggal gi waaye bul toog rek jàpp ne ngi dana ko def wala diw dana ko def nga kenn ku nekk jàpp ne sas woowuñu sase boo ko matalul rek mën naa soxi ci màggal gi ndax damay faral di wax ne fii ñu nekk tey muy Argentine sori lool suñ borom moom bi mu sàkkee suufam si ku mu fi wàcc rek dafa sàkk pour nga jaamu ko moo ne fii ñu ne de am na ñoo xam ne dañoo lànk bañ koo jaamu waaye kon tey bu ñëwee fii Argentine di fi jaamu yàlla di ko fi màggal nan ko sante Xaadimu Rasuul ku tedd ki ndax moo dagg suñ jéngi yaakaar naa kuñ jéng doo mën a def dara de wala kuñ jéng doo mën a def dara waaye bu daggee suñ jé jéngi jéngi nga xam ne ay dañoo naroon a not ba keroog ñuy delluwaat ku tedd ki ñëw daggal na ko kon tey bu ñëwee di liggéeyal suñu borom ba nga xam ne bis bii ñuy waajal lépp lu mu am ci la ko ko joxe. nga xam ne natt yi da ko ci daan teg ba mu lool natt yi moom daw tegg ko mukk waaye nag daf fekk bis bii ñuy bu ñëwoon ci la ko daan gën a yokk ci ko daan gën a yëg. mu ñëw muy jub mu koy waajal suñu borom na ko natt yëpp teggu na daal di ko ci defal loo xam ne si ñëpp xaj nañ ci kon kon ñoon dañ ko war a delloo njukkal te kon ne xam na ne màggal gi ni ko waxee bu dee jàng alxuraan ak xasida bernde ji moom moo ci gën a kawe te bernde nag xaalis a koy def te képp ku ne ci dëkk war ngaa fexe sa ñaq dem ci lool lool dinañ koy wax sëñ Tuubaa kenn waru koo waru koo jox des. dañoo li nga xam ne moo ko moom moom ñu jox ko ko kon ñu ngi soññi bépp mbokku taalibe ñu gaaw ci te bañ koo yéexee te may ñaan jullit murit bu nekk bu fexee sa sa ñaq njëkk a dugg ci màggal gi. Mm-hmm. ndax boo nekkee bis ba nga koy indi wala nga nekk bu fee day fekk daanaka liy des ci màggal gi lay doon. te bu fa day fekk gaa yi seen at yi dugg na ci màggal bu baax te ñu ngi ci ay programme yu bari di ci wax ne nag ñu ngi leen di yee ñëpp mbokk taal bi ci àddiya jooju ndax àddi màggal gi mu munta faaxu mukk te àddiya jooju teewut kon na ci ñëpp def seen àddiya ngir jëm sëñ Tuubaa ndax kenn mës gis kuy liggéey sëñ Tuubaa ba ñëpp ban raw ko wala ay moromam raw ko doo ko dégg fukk doo ko dégg mukk kon nan xool baax na ñuy liggéey sëñ Tuubaa baax a baax soññee gi nga soññee ci wàllu àddiya am na solo lool waaw comme noonu noonu ñu ko waxee woon rek ñu déggee ko noonu daal xam ni moom bu ñu déggee ni ngeen waxee day mel ni dañu kon dañoo soobu ci li ñuy wax bilan zéro. te bilan zéro nag foo ko dégg mooy xëpp nañ li fi nekkoon lépp xëpp nañ ko ci liggéey bi dara desu fi kon dañuy tàmbaliwaat kon loole ñun ñëpp ñu ngi ci biir foofu la ñuy soññee kon suñ bàmba bu ñu waxtaanee ci wàllu addiya ndax moom mooy taxawal berne ak yeneen ak yeneen te kenn ku ne xam na xam na diggante Serigne Touba ak alxuraan xam na diggante Serigne Touba ak xasita xam na digganteeg Serigne Touba ak jàngkati xasite yi. kon tamit day mel ni faw ñu dugg ci point boobu mu jëm ci wàllu culturel bi. njàngum alxuraan meeg njàngum xasite meeg yëpp loolu tam comme que yéen yor wàllu organisation sàkk woon na nañoo xam nan ngeen ko bëgg a doxalee. jàngkatu rajo si ci dëkk bi te kenn ku ne xam ne dëkk bi léegi macha allah. Mm-hmm. kuréel yu mën a jàng ngi fi te bari nañ fi ay jàngkati rajo yu mën a jàng fi te bari nañ fi loolu lañ bëggoon a xam nan lañu koy organiser ak organisation màggal gi ngay indi ci ay leeral ndax lu mënta ñàkk ci màggal gi la. ndax dañuy dem ba lu ci bari ci laaj gi sax mun nañ mun nañ la kaa delloowaat waaye nag comme noonu nga ko waxee rek ndax e, sëñ waroom dogal na ni e, bu dee wàllu njàngum xasida e, daanaka yow lañ ci jiital ndax yaay jëwriñ jaag yeeg ñoom mut seen ñi nga xam ne yéen ànd waaye ci wàllu programme bi rek ñu xam ni. noonu ngoo ko waxee noonu rek lay demee bis bi moom dañoo fas yéene maanaam mu fees dell at jaamu yàlla benn waxtu woo xam ne daal fas yéene nañu mu doon waxtu woo xam ne espace lay doon moom fas yéene wuñ ko eh, buñ fa dajee te mooy huit heures bi nga xam ni maanaam moom lañ fay daje huit heures daje googu nag mbooloo mi nga xam ni ñoom ñooy ñëw ci bisu màggal gi la ñuy wax waaye ñun moom defe naa ni. Eh, ginnaaw bu ñu noppee boobu ba léegi sax di daje bu ñu demee bañ ne suba la jàpp ginnaaw suba la ñuy tàmbalee ni ca barab ba tàmbale wàllu togg geeg wàllu aménagement beeg at yooyu yëpp waaye bu ñu xëyee rek ñu xam ni njàngum alxuraan bi bu tàmbalee dootul dog ba ni nga xam ni noonu la ñuy demee ba wax seen yeewee ko njàngum xasida yi noonu lay demee bu soobee yàlla comme noonu nga ko waxee dëkk bi màgg na léegi. kuréel yi fi ne bari na lool te tubaar fa kàll ku ci jàng rek da nga naan xanaa sa morom jarul muy ñëw toog di jàng te loolu yow yaa ma ci gën a xam dara e, walaay la boo dee déglu seen jàng ñoom ñii da ngay jàpp ne ñii da ngay jàpp ni sax yaa nga biir Touba yàlla xam na lool ku loolu nag taw feexu sañ Touba la ndax e, li may faral di wax rek li ñu findi walaay lazim zaahir bi mun naa mun naa doon dañoo ne woon Sénégal dajale sañu weccit bëgg a tukki dimbale sañu njaboot génn xamuñ sax fu man damaa jàpp ni sëñ bi la sëñ bi sëñ sëñ bee kanam ma ndax la mu wàkkante woon ak nasaraan si ne leen dinaa leen fekk ba seen biir réew yooyu e, def fa la ma bëgg a def te mooy lii ngeen ma doon tere sama réew te mooy taxawal diine sañu borom ji naa ñëw ba foofu seen biir réew mi taxawal ko fa kon damay wax ni sababu baatin bi fii sañu ñëw fii e, nameelu sëñ bi la kon nag e, dafa mel ni rek dafay dafay feeñit yëngatu yëngatu gi fi mu ne nii kuréel yi fi ne ba safar gi teewoo ba léegi ku doon répété ñaari yoon yaa ngi ci ñetti répétition ku doon répété ñetti yoon yaa ngi ci ñeenti répétition kon dafa mel ni wuutelu wuñ ko ak yàlla xam ne ni nekk Touba Mbacké kon loolu day mel ni rek li ñuy wax ni maanaam sëñ Touba la suñu borom lem jaww ji yëpp teg ko ci loxoom loolu moom day lu wér a wér a wér a wér kon buñ demee ba yegg ci màggal gi noonu lay demee mm-hmm. njàngu alxuraan bi day wëy durus gi wëy njàngum mi moom it wóotal nañ ko programme boo xam ni ñi fi ne ci jànkatu rajaskat nga xam ni moom it eh, tuwaar fa kàlla moom it mm, ay ñu am na ñu fi ni ñoo xam sax dangay jàpp ni eh, ñoom Fallou Ndiaye ñëwaat <laughs> ne ci dëkk bi jàng lu yéeme la loo xam taw tawfeexu sëñ bi la ñoom it bu soobee yàlla yéen ñi nga xam ñoom lañ dénk programme dañ leen defal liste boo xam ni bu soobee yàlla waxtu ci nekk ca war a jàng eh, dana jàng yéen ñi nga xam ne yéen a yor mawlud bi it kuréel yi fi war a jaar yëpp nga xam loolu sa loxo la nekk yaag ñoom mot mot seen eh, bu ngeen defee seen recrutement ba xam kuréel genn genn gu ci ne xasida gam war a jàng at waxtu gam war a jàngal danañ jàllale programme boobu moom it dañ koy wëyale wëyale wëyale wëyale ba keroog rek eh, ñuy tàllal loxo yi ñaan da xam ni rek eh, màggal gi moom noonu lañ ko war a fas yéene noonu lañ ko fasee yéene dundale wàllu benn gi it du rek ndekki añ reer déedéet màggal weesu na foofu waaw màggal weesu na foofu màggal moom da nga naan da ngay toog di toxal rek ba keroog ngay jógee ci barab ba waaw noonu lañ koy fas yéene defee mooy bu ñu toogee ndékki li tàmbale maanaam fu jógee rek leneen dana ñëw toog fu jógee rek leneen dina ñëw xam naa sama mbokk faale ni moom Eh, dana ci bari ñoo xam ni moom <laughs> bu ñu sañoon muy am muy am weer wu ne waaye daal noonu daal lañ ko fas yéene defe nga xam ni njàngum xasida bi njàngum alxuraan bi njàngum raas del leen du ci dog wàllu bernda bi it noonu lay demee dara du ci dog di ci profité occasion sax eh, di ci borosaale waale programme tubaab si xam naa du ñàkk xëy na buñ demee ba dugg ci laaj boobu it ñu indi ci waxtaan goo xam ni mënu cee ñàkk ndax liggéey la bu am solo boo xam ni Eh, ñun ji sañu borom dogal ñu ñëw ci dëkk bi ñu ngi koy def ci sañu diggante ak nasaraan si. Mm. waaw xam naa kon dañuy bàyyi ba ci kanam rek ñu yegg si ko. waaw tabaarakallah macha allah sëñ Ahmadou Bamba loolu nga leeral ci wàllu njàngum xaside mi mooy commission culturelle bi alxuraan jéeg yëpp am na solo ah, di ci profité di soññaale rek mboolem jàngkatu rajaskat yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ci ñu xam ak ñi ñu xamut buñ ci tuddee sëñ Ba Ibrahima Mbaye ak sëñ Siri Diouf ak Cheikh Xasita rek day mel ni bàyyiwuñu kenn kon ñoom ñëpp ñu gën a gën a takk seen laxasaay rek waajal ko xam ni màggal gi moom euh, yooyu yëpp benn mënta dem bàyyi sa morom di soññaat tamit ci mbooleem kuréel yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi te it bëgguñoo tudd benn kuréel di bàyyi ba ci des muy am lu muy niru waaye gépp kuréel boo xam ne yaa ngi ci dëkk bi rek te am pas-pas fas ko yéene wa wane ci bisub Sëñ Tuubaa bi incha allahu rabbi moom jàppal ni danañ la bind ca programme ba danañ la wax ban heure nga war a jàng danañ la wax ñaata waxtu yi nga war a jàng wala ñaata simili nga war a jàng kon loolu ñu ngi soññewaat kuréel yi bu baax a baax a baax ci wàllu répétition yi ak teewaay geeg mboolem li nga xam ni moom moo aju ci njàngu mawlid mi daal ñu ngi ciy soññaat jëwrinu kuréel gi jëwrinu kuréel yi mbooleem ku dégg lool rek sab soññee ngi noonu kon incha allahu rabbi xëy na buñ jugee ci lii danañ dox jëm ci liggéey bi nga xam moom mooy topp mooy bindu wàllu programme bi kenn ku ci nekk xam heure bi nga war a jàng euh, ak la nga war a jàng bu ko defee ñu euh, jotali ko ci mboolem conservatoire yi nga xam moom ne ci dëkk bi. waaye ba tey dañuy ñëwaat ci sëñ maam Thierno Amar ci wàllu organisation li ñuy ñëwaat rek mu mel ni màggalu daaw gi gisoon nañ ñu def ay caravane li ñuy wax caravane di safar mu mel ni mboolem daayira ndax mën nañ ñi màggal gi fédération moo koy organiser. te fédération bi buñ nee na 41 daayir la 41 daayir yooyu noonu tey euh, jëwriñ yi nga xam ne ñooy euh, jëwriñu fédération bi kenn daayira bu ci nekk rek war nañ faa dem waxtaan ak yow ci màggal gi ci àddi yeeg yëpp te kenn ku ne xam ne ne diggante benn fanu safar ba fukki fan ak juróom-ñetti safar juróom-ñetti fan rek la buñ neexee sax ñu ne fukki fan ak juróom ndax ñetti fan yi fan sës ci màggal gi danañ ne ci waajtaay ba nga xam ni lu baree bari dootuñ ko mën lu dul dem fañ ko war a defar rek di defar ak a jekkal kon karawaar yooyu la ñu bëgg sëñ maam Thierno ngeen wax ñu ndax mel na ni tàmbali na ndax ni mu tàmbalee mooy benn fanu safar gi def nañ ko ak àndandoo nañ ko ak daara Miftaahu Nasri bi nga xam ne moom mooy ndawi daara yi ci dëkk bi defe ko seen daara mu mel ne tey jii dimanche ji waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñoo ko aye kon tey loolu programme boobu lañ bëgg nga continuer ñu ko ni muy déroulé ak ni ngeen koy waajalee. li ci des ak ni ngeen ko bëggee ba feeg ñuy àgg ci màggal Touba gi muy karavaani safar yooyu nga xam ni dañ ci ànd ak seen góor a Touba TV moom itam mu ciy def liggéey bu am solo. Mm-hmm. di profité di leen ñaanal suñu borom def tawféex euh, Touba TV dem ba nekk ay rajo. Mm-hmm. dem ay antenne yoo xamante ni wax dëgg yàlla. day liggéeyal Serigne Touba fii ci Amérique latine ndax fi mu toll nii rek li muy def ci liggéey dafa am solo. Mhm. kon mënuñu di waxtu duñ ko tudd suñ góor ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex ba média bi. Mhm. Mhm. fa mu ci bëgg àgg suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ndax. bi bi muy soog a tàmbali sewoon na lool waaye kenn ku nekk gis na fi mu ne suñ banque yi def tawféex. te fi ñu bëgg mu àgg fa it maanaam mel na ni des na. kon tamit ndax fédération bi am na loo xamante ni tamit danañ ko laaj si dinañ ko laaj après ci ci digganteem ak Touba fi mm. kon nga ñëwal ñu ci wàllu caravane bu ko defee ñu ñëw ci sëñ ci beneen laaj boobu. Ah, jërëjëf Mbaye Cheikh ñu laaj laaj bu solo jëm ci wàllu karawaanu màggal gi xam ne ñëpp xam na ne defoon nañ ko daaw ba boo gisee daaw màggal gi am na benn ampleur bu mu amoon xam na loolu lu ci am solo ndax lépp loo gis dafa am wàccaay. li eh, ma koy waxee rek ndax màggalu Tuuba moom dafa nekk bis boo xam ne ci ñun waruñoo toog ba bis ba rek ñu daje. weeru boo xasee teru rek kenn waratut am jàmm moo waral nag ñu def karwaan boobu comme ni nga ko waxee premier safar ñun fédération bi yëpp ñu ngi ci àndoon ak daayira Miftahu Nasri bi nga xam mooy ndey daayira wax dëgg yàlla mu neexoon loolu macha sallah jaar yoon ñu jàng fa ay kaamil yu bari jàng fa xës de berne fa soññante fa xol yëpp tooy. xam naa ne tey jii ci dimanche bi tamit incha allah ñi ngi war a fekk waa kër maam Cheikh Fall ci njiital sëñ Assane ak mbooleem mbokki Baye Fall yëpp maa ngi jokkoo ak ñoom léegi rek suba eh, altine bi incha allah rabbi fas yéene noo dem Linière ci daayira Mifta eh, daayira Asaabul Jannati bu Linière ci njiital sëñ Pape Soda ak mboolem ñu ngi ko àndal yëpp buñ te jógee àllarba ñi ngi jëm constitution ci daayira 18 safar ak mboolem waa 18 safar yëpp rek. ñu fas yéene faa ànd te xam ne nag boobu day teel képp koo xam ne bëgg nga koo fekkee na la fa cinq heures fekk ñu ànd kook ñoom ndax ñoom ñu dañ koy yaatal lool ñu ngi ciy woo ñëpp muy daay di su safar buñ ci jógee alxemis ñu ngi dem Morone ci daayiram Touba Morone ci njiital sañ Joon ak sëñ Bamba ak mboolem ñi ci aju yëpp incha allahu rabbi buñ ca jógee tamit war nañ dem xoose paas ci altine ba ca toppaat yeneen daayira yi tamit bis yi day day duggante ba doo mën a teg yenn kii mais yeneen daayira yi ci des yëpp ñu ngi jokkoo ak ñoom xool ban bis lañ jàpp ne moo leen di arrangé ñu ànd ak ñoom waaye nañ jàpp ne safar gi moom fii ba màggal gi ñëw day continuer incha allah ñu jàpp ne rek bu nee karawaan bi du du noonu jël jëwriñ yi ci kaw rek wala ñu ci bureau bi noonu ba bopp mbokk taalibe muy ñu ci wàllu xasida yi muy ñu ci wàllu alxuraan ji muy ñëpp ñu mën doon rek ñu àndandoo ko ñun jéem a bàyyi seen yitte ndax kenn amul jot waaye daf fekk ne bis bu bu teree ñun dañuy jéem a wàññi suñu jot jox ko sëriñ bi. kon ñu ngi ciy woo ñëpp may laalal tuuti ci wàllu alxuraan ji sëñ Bamba doon leeral. di wax na bis bi am na solo lool waaye comme ni ko sëñ Yankoba soo ñëwoon sëñ Dame si dugale woon ko bépp daayira bu ne ci dëkk bi wala moo xam nit personne bu ne ci biir këram. nay gën a góorgóorlu ci alxuraan ji di ko def àddee sëñ Tuubaa te bind limi ak xasida yi daayira bu daan jàng benn kaamil ñaari kaamil ñu ngi lay sàkku nga yokk ko di ko bind mu jëm ca màggal ga buñ te dajee xam lim jàng lan la kon jàng alxuraan bi soññee nañ ko bu yàgg waaye dañoo xam ne buñ ko soññee fii dana gën a siiw kon ñu ngi sàkk bépp daayira bépp kuréel bépp membre ñu def ci alxuraan ji ak xasida yi te bind ko fas yéene jëm bis ba boole kook la ñuy jàng ca bis ba kon ñu ngi leen ciy soññ bu baax a baax noonu rek lay def jërëjëf sëñ maam Thierno ci wàllu leeral gi ci caravane yooyu kon mu mel ni leer na te dégg nañ ko kon ñu ñëwaat rek ak sëñ Bamba Ñaŋ ba tey ci wàllu euh, invitation ndax defe naa loolu may bëgg laaj day dugg ci caravane yi ndax bu ñu xoolee daaw bu ñu demee waaye boole le dix safar joxoon nañ ñu plaza congresso bi nga xam ni moom moo jàkkaarloog assemblée nationalu dëkk bi ak ak ak sénat national bi. ñu defoon fa animation culturelle bu am solo boo xamante ni dañoo defaroon ay genre carte invitation lu mat mille cartes jox ko suñu mbokki tubaab yi ndax euh, ku nekkandoo ku nekkandoo koo xamante ni du ab jullit war ngaa mën a rafetal te it war nga ko mën a woo ca la ngay def ba mu ñëw ba euh, ba xemmem ko ba xam ko ba bu ci bëggee bokkit mën caa bokk mu mel ni loolu daaw amoon na solo te réussiroon nañ ko moo tax ñu doon laaj ndax animation culturelle boobu ci plaza yi moo xam muy congrès wala fu mu mën a demee dana amaat ren aussi ndax ak bu amee bu suñu mbokki taal tubaab yooyu ñëwee nan lañ leen di euh, teeroo ci wàllu berne ci wàllu waxtaan ndax boog ñun ak ñoom bokkuñu lu ñuy wax. Mm-hmm. ndax kon day mel ni wàllu exposition yeeg yooyu yëpp ñoom tam war nañ cee def liggéey bu am solo boo xamante ni ñoom bu ñëwee sans pour autant sax ñu jël micro di wax ak ñoom waaye bu ndax tubaab bi dañoo fonk liir. buñ demee ba ci exposition ñu liiree rek danañ xam li waral woote gi danañ xam li waral ndaje gi loolu tamit ñu ngi leen di laaj fan ngeen ci toll seen diggante ak euh, administration bi. suñ sëñ Bamba bisimilah. waa kon sëñ Baye Cheikh comme noonu nga ko laajee rek e, wax dëgg yàlla e, liggéey bi comme noonu nga ko waxee daaw muy animation culturelle boobu nga xam defoon nañ ko fee ca place à congrès waxuma la dara sax waaye tawféex gi mu tawféexe woon waaye yéeme gi mu yéeme woon ndax ku xam plaza bii muy wax muy plaza congresso xam ni wallaay lazim buñ demee ba njabootu sëñ Tuubaa toog ca plaza boobu di fa jàng ay xasida di ko yëkkati maanaam lu doy waar la waxuma sax jëlale naa eh, ne sëñ Tuubaa jamono ne teloon waaye eh, maanaam ñi ne woon ci dëkk bii rek mag ñi nga xam ñoo ne newoon ci dëkk bi ku la woon nit ñi ñuul ñi dem nañ ba jamono ñu toog fii e, di fi def lenn ci seen culture waxuma nag waxi diine culture rek ñoom dañ la naan loolu e, sañ borom du mus a am loolu moom moom àdduna du mus a ànd ak loolu muy am waxuma nag mu dem ba njaboot sëñ Tuubaa ñëw fi toog ci place boobu nga xam ni place sacré la sacré la boo xam ni waa dëkk bi maanaam maanaam maanaam maanaam fonkel gi nga ko fonkel tax na du ko jug sax ñu jox la ko waaw du ko jug sax ñu jox la ko kon bu ñu demee eh, ba ñu defal fa loolu sëñ Touba rek wax dëgg yàlla eh, li sëñ Touba bind ne sañu borom eh, jox na ko lépp lu aju ci kaw àdduna ak yi ci biiram loolu moom day day mel ni kon lu wér la sëñ Touba faye sañu borom faye na ko loolu ba tax na kon loolu mu neesul bañ a amaat. Eh, danañ ko doxaat comme nañ ko doxee woon daaw fas yéene faa teewaat noonu nga ko waxee ci carte yi danañ eh, buñ demee suba incha allah ba confirmer barab bee danañ wax waa administration bi ñu dox ko defaat carte yooyu ñu duplier waat ko bind ca la nga xam ni moom lañ ca bindee woon fas yéene ko joxewaat ndax daaw kenn ku ci ne gis na ni bari waanoon na tubaab yu fa ñëw yoo xam ni carte yooyu ñoo leen indi. Hmm. muy volonté yooyu. nga xam ni moom lañ liir gis mbir mi ni mu yéemee ak toogaay gu sell gi bernde yi ñu doon joxe xëy na ñu ni kat li olof naan eh, ku la jox ndékki jox la añ dig la reer moom war nga kaa mën a gëm ñu ñëw fa biñ fa ñëwee li ci gën a eh, taw fii xewaat mooy fekk na waa administration def fa benn jàppo bu am solo boo xam ni eh, maanaam lépp loo xam dunduk sëñ bi la rek bind nañ ko fa ci ay këyit waaye def nañ ko fa ci wàllu vidéo tubaab yi di ko jàng di ko seetaan waaye ne dafa am geneen tawféex gu fa ne gu ca ne muy sañu soxna tubaab yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te sañu borom boole ñoom nga xam ni ci mbaaxu sëñ bi ndax buñ ko doon nat ci sañu jëmm yi dañuy wax ni ku munta jagal sa bopp moom munoo jagal nit. te sañu ndëng moom foo ko teq rek weesu na ko waaye ñoom soxna yooyu nga xam ne sañ borom moo leen dimbale ci tawféexu sëñ bi. teg leen sa ñuy loxo ñu nekk fii yor daayira boo xam ne tey jii ñu ngay déggante seen biir ñoom ca nañ ko mëne ak ña nga xam ni ñoo leen di jege di leen dimbali seen wàllu diine nga xam ne dañuy daje ñoom it di waxtaan seen biir te kenn ku ci ne xam ne ni bisu xasida bi paase ñoom def nañ ci liggéey bu am solo ndax e, tubaab moom kenn ku ci ne xam ne lu ko yéem ci moroom tubaabam lay jóge waaye du jóge ci nit ku ñuul ndax la mu jàppe nit ku ñuul boo doon boo doon boo doon dem arasa ki ñëwit loolu la lay jàppee rek loolu moom ñu ne ci dëkk bi xam nañ ko waaye ñoom biñ ñëwee ñoom tubaab si ci volonté yooyu nga xam moom lañ leen joxeel biñ ñëwee ci biir barab bi fekk fa seeni moroomu tubaab yoo xam ne ñoom ñoom ñoo bokk ak ñoom dëkk ci dëkk bi e, mel ni ñoom xonq ni ñoom ñu fekk leen ci geneen colin goo xam ni moom lañ col tooge geneen toogin ba noppi di jàng leneen loo xam ne ñoom baaxuñu ko woon di jàng ci dëkk bi da leen a impressionné da leen a jaaxal bi mu leen jaaxalee nag dañ leen a jege ñoom tubaab yooyu laaj seen moroomu tubaab yooyu li waral lii la seen moroomu tubaab yooyu nag ñooñu gën a jekk ñun ci wax leen ñoom tubaab yi lu leen mën a jaaxal ndax bu ku nit ku ñuul taxawee di leen wax dañ naan ñi dañoo bëgg a jaaxal rek bu leen bu bu leen tolloon noonu ñu toog seen dëkk waaye bi leen ko seen moroomi tubaab waxee wax leen ñoom li ñu mot ci sëñ bi te xamuñu lu ci bari lu leen yéem la loo xam ne rek dañ faa muñ a jugee képp ku xam tubaab si xam ni mbir mi demee di nga xam li may wax ni dëgg la donte benn tubaab la ju jaare na fa tuub dugg ci diine ji doon murit di gëstu lenn ci mbirub sëñ bi. Mhm. te ci bis boobu la ko amee. kon nag dafa am leneen lu may lancé waat rek di ko lancé waat mboqu taalib yi fi ne yëpp mooy ñu gën a yeesal sañu jëmm yi gën a defar sañu jikko yi gën a nekk ak ñi nga xam ne moom lañ sañu boroom booleel ngir lan feeñal jëmmi sëñ bi. ci ci ci ci ci ci mbindeef yooyu ndax bunt la yoo xam ni ñu bari ñu ngi kiy jaar ci bi dëkk bi ñu nekk nii di yéemu ñoom ci seeni jëf ba jaare ca tuub loolu nag ak payam kenn xamul lu mu toll waaye lañuy boole lépp delloo ko sëñ bi àddiya te xam ni ci moom rek la kon nag noonu ñu ko waxee noonu rek lay demee fas yéene nañoo invité autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp fas yéene nañ leen a invité buñ fa yegsee it comme niñ ko defee woon ci bisu kii nga xam ni tubaab bi kenn ku ci nga xam na nii ci wàll boo leen bëggee bernde am na façon yu bernde goo xam ne ñoom duñ ko lekk ci wàllu safkaan yu demee noonu yu saf yeeg yooyu ñoom ñi nga xam ni ñoom la suñ borom dogal ñu ne fii eh, doon ay tubaab te nekk ci biir daayira bi ñoom bernde yi nga xam ne ñoo war a dem si seen bokk tubaab yi ñoom bu soobee yàlla noonu ñu leen ko joxe woon noonu lañ leen ko joxe waat ñoom ñu defee ko noonu bu ko defee eh, du am benn gàllankoor gu ci ne mm. waaye daal ñu xam ni kon la caw lu bari la cee ne it eh, waa administration yor nañ ko te danañ ko doxal te mooy wàllu pànkaar yooyu ñu defoon eh, wax ci sëñ bi mbiru màggal gi li ko sabab yoonu géej géej eh, fi sëñ bi ganee àdduna kañ la ñibbi li waral tuubaak ba ci xalif général beeg lépp rek nga xam ni sañu lenn loo xam ni rek lu jublu ci loolu la du leen ump loolu moom fas yéene nañ ko gën kaa yeesal bu soobee yàlla buñ ci balaa ñu caa yegg it xëy na dina am yeneen jéego yuñ ciy def yoo xam ni danañ ko ànd ak waa Touba TV comme noonu ko Baye see waxee léegi nii incha allah ngir mbir moomu gën a yaatu te xam ni e, maanaam liggéeyal sëñ Touba dëgg dëgg dëgg dëgg jamono jii ñu toll nii dafa mel ni ci waa bitim réew la gën a aju sax ni ci biir réew loolu nag message la bu may dolli sañu mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi ndax màggalu Touba ga ca Sénégal bernde rek lañ fay def jàng xasida jàng leneen ak leneen waaye màggal yi nekk ci bitim réew dañ cee jugee di tuubali ay nit ñoo xam ni dañuy ko ci diine sañu borom ji nga xam ni Sëñ Tuubaa li ko indi woon ci kaw suuf du lenn lu dul rek lu bonoon rek mu baaxal ko looloo fi jaarale ku sañu borom mës a yónni kon dafa mel ni ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci bitim réew am nañu liggéey geneen goo xam ne rek gu gën a dolleeku la ci ay charge yoo xam ne rek war nañ ci gën a am pas-pas ci li ñuy def te xam ni yamul rek ci dajaloo defi bernde xewlu naa ni boisson rek tas dem déedéet ndax loolu defe naa ne boo duggee ci kër tubaab bi sax eh, wala sañu kër yi ñun ñii bis bu ne ñu tuur loo xam tey jii da nga naan mën nga cee berndewu semaine waaye dëgg-dëgg mbir mi rek mooy ñu fexe ba waa réew mi xemmeem ñu xemmeem sëñ Tuubaa ci sañu jëmm yi waaye it dellu xeemlem xemmem lislaam mi ci sañu doxalin rawatina ci màggal gii nga xam ni mbooloo mu bari dañ fa yegsi kon xam naa foofu la ñuy yamale kàddu yi ba mu yegsi ci ñun hmm. jërëjëf jërëjëf suñ <coughs> kàddu yi am na solo lool wax dëgg yàlla yaa ngi koy wax léegi sax moom màggalu daaw gi li ciy tawféex ji rek moom animation culturelle boobu ngay wax yaakaar naa ku fàttaliku rek ñetti tubaab tuub nañ fa màggal gi paase tuubal nañ fa ñetti tubaab te loolu wax dëgg yàlla ni ko ni ko sëñ saalo daan waxee rek dajale téeméeri nit kenn rek baax ci jar na di samp daara saa su ne te wooteel Serigne tubaab ci dëkkub nasaraan lu man ñetti nasaraan génn diine ja ñu nekkoon ñëw ànd ak yow ci diine lislaam maanaam jar na saa su nekk di wooteel Serigne Touba saa su ne di góor góorlu te ci biir loolu mu mel ni dëkk bi ñu nekk am na daayira bu fi nekk boo xam ni daayira nasaraan la ni ma ko mën a waxee ay jullit lañ waaye ñoom ñëpp waa dëkk bi lañ daayira boobu tamit Sëñ Bàmba ñu ngi doon sàkkoo xam nan ngeen di ànd ñoom ak nan ngeen di doxaleek ñoom ci wàccaayu tubaab bi ndax ñenn ñi ay ay ay ay tubaab la ñoo xam dañoo am ay jëkkëri sénégalais ñenn ñi sax amuñu jëkkëru sénégalais waaye tuub nañ nekk jullit te ñu ngi ci daayira daayira boobu te xëy na mënuñoo ñëw di fekkee suñuy réunion mënuñoo ñëw di fekkee suñuy daayira waaye ñu bëggoon a xam waajtaayu màggal gi naka ngeen koy ànd ak ñoom ak ñoom lan mooy nekk matt ci màggal gi bu ñu demee ba ca bis ba. bàyyi noonu noonu nga ko laaja rek e, ñoom moom defe naa boobu ba léegi ñu ngi jokkook ñoom ci lu ci gën a bari sañ borom dogal na ni sax e, dimanche bi weesu bu ma juumul fekkoon na ni ma génnoon ci wàllu. mbirub liggéey bi waaye ñoom daje woon nañ fii ci kër gi ànd ak soxna Mariama e, ñu ngi nag ñoom di waxtaan seeni waxtaanu biir e, ni nga xam nag ñun noonu la ñuy fas yéene ànd ak ñoom ci ci màggal gi rek ci wàllu liggéey bi mooy li nga xam ne moom lañ yoroon ñoom daaw yoroon ko ci bisu xasida yi moom lañ leen di fas yéene delloo te mooy ñuy dalal seeni moroomi nasaraan yi nga xam ñoo ne ci dëkk bi di leen toppatoo ci wàllu bernde waaye it di waxtaan ak ñoom ci sañu diine ak sañu culture at yu ci bari defe naa ni am na ci ay vidéo yoo xam sax sañ góor mi defoon na ko ci ñoom ba jàllale woon na ko ci internet bi te muy lu am solo e, noonu nga ko waxee am na ci ñoo xam ni sañ borom dogal na e, ñu am borom kër e, ñu ne ci biir daara ji waaye am na ci ñoo xam ne amaguñ sax boroom kër waaye ñoom ñëpp rek ñoo bokk benn pas-pas bi e, ñu ngi daje nag ñoom ñu ngi waxtaan wax dëgg yàlla xanaa rek di gën a soññ comme noonu nga ko waxee wàllu soxna yi nga xam ne ñoo fi ne ndax e, màggalu daaw la e, dañ ma cee wax lu am solo loo xam ni biñ ma waxee ba noppi sax nag dama dama dama xaw a sëgg ndax ñoom soxna yi réew mi dañ ma wax ne ma dafa am lu ngeen ñuy sonne saa su ne te mooy eh, ñuy muuru at di yiw yiwlu te ñu gis ni yéen seen soxna yi nga xam ni ñoo ñëw ci màggal gi te doon ay sénégalais kenn muuru wu ci kenn ku ci ne yaa ngay diw di teg at di mu muy lu doy waar loo xam ni tubaab dafa am seetlu te tubaab loo koy tere bis bu gisee nga bis bu la bettee nga ne ci bu keroogee nga koy gëj a tere ndax dootoo ko sant ba tax na maa ngi ñaan sañu mbokk soxna yi nga xam ni ñoo bokk ak ñoom Sénégal te ñu ne ci dëkk bi di ñaanit seen boroom kër yi nga xam ni ñoo leen yilif te war a yor seeni kilifteef di leen digal ñuy def di leen tere ñuy bañ màggalub sëñ Tuubaa gi dafa dafa romb sax màggal gi dafa war saa su ne waaye nag ñu gën kaa jëmmal ci màggal gi mooy képp ku ciy bàyyeekoo sa kër di ñëw xamal ni fa nga jëm barab la boo xam ni barab bu ñuy jaamoo yàlla la fa nga jëm barab la boo xam ni boo dee murit la murit nga war nga am yàqin ni yàq sañ Tuubaa yi yendu ci barab ba ba keroog nga fay jóge barab yu mel noonu nag boo fa dee dem war nga am nooy melal sa jëmm ji rawatina nag bu demee ba nga nekk ak sa ñoo xam ni e, maanaam maanaam maanaam dañuy wax nag e, bu ñuulee kukk nga am ci meew meew mu weex tàll war nga kaa sant sañ borom waaye tubaab yii bu demee ba am ci ñoom lii war nañ kaa sante ñun sëñ Tuubaa waaye nag ñoom war naa doon jàjj ci ñoom ñoom sénégalais yooyu ñu gën a defar seen jëmm yi ngir maanaam eh, mission bi nga xam moo ñu moo ñu war ñun góor moo war jigéen képp ci diine kon ñoom war nañoo mel noo xam ni dañuy delloo soññ soxna yu jigéen yi ci fi ne ngir ñu jéem a mel ni ñoom ni nga xam ni noonu la ak jigéen di diine di mel rawatina ñun murit yi nga xam ni dañoom raw royukaay bu jigéen boo xam ni maam soxna jaara ku ko ku ko ku ko wax rek ak jàjj lay doon goo xam ni rek defe naa ni féete na kaw lépp kon nag war nañoo góorgóorlu ba yeneen bis yi buñ ko melul it bisub sëñ Touba bi ñu jéem kaa mel ngir tubaab si doot ñu am luñ ñu jamee kon xam naa baay bàyyi seex foofu la ñuy kiiwee rek eh, ba mbir mi dalaat ñu dalaat sañu kaw rek. woote boobu nga woote ci diggante soxna yi nasaraan ak suñu soxna yi ne ci dëkk bi lu am solo la xam naa ni day mel ni léegi ñu àgg fu ñuy yëkkatee jotaay bi euh, dañuy bëgg a jox suñu maam Thierno Ama rek mu am benn appel bu mu lancé ndax képp ku ni Serigne Touba. ku nuy waa kër Sëñ Tuubaa ci dëkk bi xam nga ni nekk nañu fekk suñuy nawle ñuy suñu mbokki taalibe ñuy suñu xarit ñuy suñu lépp muy waa kër maam Alaaji Malick lu ñu mës a woote it dinañ bàyyi seen yitte bàyyi seen jot def seen délégation ak seen i jàngkat ak seen àddee nekk ci suñu biir ci njiital Serigne Mouhamadou Ba ak Serigne Mouhamadou Lamine Faye leen ñaanal jàmm ak tawféex kon suñ maam Thierno loolu la ñu bëggoon nga defal ñu ci benn lancé ndax suñu diggante ak ñoom bu ko ñu continuer liggéey bi. di solo di rafetlu kàddu yi sëñ Bamba macha allah am na solo lool di comme ni nga ko waxee rek di woo suñu mbokk tijaan yi ci njiital sëñ Yankoba ak sëñ Bamba xam ne comme ni koy waxee saa su ne rek duñu duñu ñaar benn lañu te wax dëgg yàlla nekk bi ci réew mi ak jaxasoo bi mënoo leen a xàmmee rafet na lool macha allah. te loolu tamit li ko waral mooy ñoo bokk luñ bëgg rek ak fuñ jëm muy diine ji te ñoom ñëpp benn lan kon ñi ngi woote ci turu sëñ Mamadou Ba ci njiital sëñ Yankoba ak sëñ ba ak mboolem fédération yëpp di woo mboolem mbokki tiijaan yëpp ci njiital suñ Mamadou Ba moo xam ñaaseen yi fi nekk la moo xam laayeen yi moo xam ku mu doon rek ñu ngi lay woo ci bis bi xam na bis bi li ko tax a jóg mooy bisu jaamu yàlla la bisu jaamu yàlla bisub sàkku ay xéewal la kon ñu ngi ciy woo ñëpp rek di leen woo ne xam ne mooy seen woote xam naa ne incha allah danañ fa sax yegg si ci mboolem koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi mm-hmm. di woo mboolem administration yi ne ci dëkk bi rek moo xam association bi la moo xam suñ mbokki joolaa yi la moo xam mbokki seer ku mën a doon rek ñu ngi lay woo ci bis bi xam ne bis bi moom bisub jaamu yàlla rek kon ñu ngi leen ciy woo bu baax a baax a baax a baax di soññiwaat mbokku taalibe yi tamit sëñ Baye Cheikh ma kiyaale ko ci muy wàllu comportement yi muy wàllu waxtaan wi nga xam ne fas yéene na wut ay thème thème bi nag yaakaar naa biñ ci waxtaanee mooy waxtaan ci suñ culture yi nga xam ne ak suñ diine ak suñ valeur yi nga xam ne moom lañ jëlee Sénégal indi ko fii ñu far cee soññee ba am solo te jullit bu nekk mu rawatina taalibe war ngaa mën a moytandiku daw jógee Sénégal ñëw fu sori ak lu sori sori valeur yi nga ne moom nga fa jëlee woon wala muy diine wala liñ la yare nga koy perte ñi gën a soññe ci loolu rek te xam ne bisu Sëñ Tuubaa moom ku fay ñëw dangaa war a gën a xool li gën a rafet sa yére nga sol ko mm-hmm. gën a xeeñ parfum bu neex sol-sol gi yiw moo xam góor la moo xam jigéen la ñëw fas yéene dundal bis bi ndax bis bi tamit ay njariñ kese la te war nañ fexe ba njariñ yooyu bu ñu ci kenn ëppalata bu mu ñu raw mm-hmm. kon ñu ngi woo ñëpp di soñ ñëpp di di ñaan yàlla suñ borom mu yeggalañ ci bis ci barkeb xes de waaw kon de xam naa noonu ñu ko noonu ko sëñ maam na waxee rek fa la ñuy kàddu yi rek te mooy appel boobu nga xam ni moom la def e, ci woote gu rëy googu mu woo ñëpp e, bu soobee yàlla sax xam naa du yem ci woote gi danañ fexe ba ñun ñi nga xam ñoo yor organisation bi fenn fu ñu ci war a dem rek bu soobee yàlla danañ fa dem waxtaan ak ña nga xam ni ñoom lañ ca ñoom lañ ca war a waxtaanal. bu ko defee rek ñëpp ñëw ñu àndandoo rek màggal màggal gi tey ñaan yàlla suñu boroom mu may ñu ñu fekke màggal yu baree baree baree bari te lépp loo xam ni def nañ ko ci it e, mu doon yiw suñu boroom nangul ñu ko e, te làqal ñu ko foo xam ni yàq du fa yegg ba ba mukk di woowaat mbokku jëwriñ yi it ñu gën a soññ bu baax a baax a baax seen mbooloo yi te xam ni diggante bi dara desu fi te it eh, xat na xataay goo xam ni fi mu nekk nii eh, wax dëgg yàlla mm, liñ ci naal lépp lépp lépp lépp lépp mën na am eh, waxtu wi du ko maye waaye nag bu ñëpp jàppee rek mu sotti ndax ni ko gaa ñu waxee bu dee ñeent fukki daayira at ñaar ñoom ñoo ëmb fédération bi wax dëgg yàlla am na lu ci bari loo xam ni war naa yomb ci woote. kon noonu ñu ko waxee rek noonu lañ koy defee rek bu ko defee di ñaan rek eh, comme ni ko Baye see waxee léegi di jaajëfal lu baax a baax it eh, rajo bi nga xam ni moo fi teew muy Touba TV noonu ko Baye see waxee ñu ngi koy ñaanal sëñ góor a at ñi mu àndal bu wér te mooy lépp loo xam ni lu ab rajo wala ab télé war a am la rek eh, yàlla na ko ko sëñ bi dénk te am nañ ci yaakaar bu wér ndax. fi mu toll nii tàmbalewul woon foofu te ba muy tàmbali ni nga ko waxee noonu rek la demee gënoon naa sew waaye nag e, moom sëñ bi lañ koy kalaameel rek ndax lenn sëñ bi du néew du tuuti te it ca kanam rek la jëm kon nag e, lim ci bëgg moo ko xam waaye lu mu ci mën a e, yéene rek am nañ bu yaakaar bu wér ni dana ko dana ko dal ndax lépp sëñ bi la. Mm-hmm. te sëñ bi moom ñaan gu nangu la yor. daa nangu ba noppi mu doog a ñaan kon nag ñu ngi koy ñaanal moom it suñu borom guddal fanam lool te barkeel ab liggéeyam ba lépp loo xam ne it luy jógee ci àll bala nartee jaar te bu ci jaaree dana indi ci kisàkka ci liggéey bi yàlla bum ci dugg yàlla na ko suñ boroom aaral barab bi ba yéene gim ci am mu motale ko ak jàmm kon xam naa ni foofu la ñuy yamale kàddu yi rek di nuyu ñëpp di jaarale passage di nuyu te ñu jëwriñ Yankooba Géy xëy na fi ñu toll nii fu mu fi waroon toll waaye sañ borom dafa dogal jamono ji mu génn xëy na neew fi waaye ñu ngi koy ñaanal it sañ borom guddal fanam lool. Mm-hmm. du ko ñaanal mbooleem jëwriñ ju ne ci biir association ci fédération bi rek eh, yéene gi benn la te mooy liggéeyub sëñ Touba bi jëm ca kanam yàlla nañu ko sëñ bi defal ci barke borom Touba. jërëjëf kon mbokk taalibe yi ñu ngi leen di jaajëfal di santaat sëriñ Touba bu baax ci tawféex gi mu ñu defal ba ñu mën a toog di waxtaanee waajtaayu bisam bi ñaan suñu boroom defal ñu tawféex ñu fekke ko ay déwén te fépp fu ab taalibe bi nekk rek euh, fa nga ko yéenee defee suñu borom defal la kattan ak wér ba nga àgg fa te defee ko fa si jàmm ci barki Seexul Xadim loolu moo nekkoon émission bi nga xamante ni moom la waa euh, Daara fédération Miftahul Nasri njiital sëñ Yankooba Gaye doon amal lu jëm ci waajtaayu màggal gi doon ci ànd ak Cheikh Ahmad Bamba Niang ak sëriñ Maam Thierno Amar ak Serigne Gora Touba TV comme noonu ko suñ Bamba waxee rek di ñaanalaat tele bi suñ borom defal leen tawféex te yokk matériel beeg comme mi ak xéew mi xéewal yi ba li ñu yéenee liggéeyal Serigne Touba suñ borom defal leen ci ndam ak tawféex ku kawe leen suñ jort barki Seexul Xadim